والصابرين سورة البقرة وقال تعالى سورة محمد والآيات في الأمر والصبر وبيان فضلهم كثيرة معروفة
mbokk yi aouzu billahi min asheytaan rajim bokk na li boroom téere bi ubbee buntu muñ mooy yenn ci ay aayaat ci téere boroom bi aaya ba ca jëkk mooy la sunu boroom di waxe ni yaa ayuha alladina amanu sbiru wasaabiru ey yéen ñi gëm na ngeen muñ ca jëkkante ci muñ ñaareelu aaya bi wala nabluwannakum bi cheyin min alxawf dinaa leen nattoo ci lenn ci tiit wal juu ak xiif wa naqsim min al amwaal ak wàññi ci seen alal yi wal anfus ak seen bakkan yi wa samaraat ak seen meññeent yi waaye su boobaa wa bashiri sabirin na nga bégal muñkat yi wa qaala taala ba tey innama yuwaffa sabiruuna ajrahum bi gayri xisaab dees na matalal muñkat ya seen pay ci lu àndul ak benn réglé wa qaala taala ba tey wala man sabara wa gafara inna zalika la min azmi al umur koo xam ne muñ nga daa di jéggale loolu ca la gën a dogg ci mbir yi la bokk wa qaala taala ba tey istainu bisabri wassalaa inna allaha ma assabirin dee leen dimindikoo muñ ak julli yàlla mi nga ànd ak ñiy muñ wa qaala taala ba tey wala nabluwannakum xatta naalama almujahid mujahidina minkum daañ leen natt ba xam ñan ñooy def ak góorgóorlu ci sunu diine ji al jihad mooy def ay effort ngir diine yàlla jëm kaw wasaabirin ngir it ñu xam ñan ñooy muñkat yi wal ayaatu fi l amri bi sabr la nga xam ne mooy aaya yay digle muñ wa bayaani fadlihi kasiratun maarufa ak leeral ay ngëneelam lu bari la lu ñu xam la mbokk aaye bu jëkk bi sunu boroom subhanahu wa taala def ni ay yéen jullit ñi dee leen muñ ca ngeen di jëkkante ci muñ ca loolu la ëpp ci boroom xam-xam yi lañ ko firee mooy dee leen muñ ci jaami yàlla yi waaye bu ngeen dajeeg seen noon mu yéeféer yi da ngeen konkoor ak ñoom ci muñ googu bu leen daw seen kanam donte ne ni am nañu ko firee saabiru mooy bari leen jëkkante jëm ci aw yiw buñ ne muñ ci arab moom la ñu tudde xabsu nafs mooy téye sa bakkan téye sa bakkan ay baat ba gën a lënk mooy not sa bakkan not sa bakkan ci lan ci ñetti mbir mooy muñ li nga xam ne mooy li la yàlla teg ci ay farata yàlla mu ne koor a ngi ni un mois bu lekk bul naan bëccëg yeewul njël sangu jil julli jil alal ji génn génn ci zakat bàyyil sa réew dépenser sa alal nga dem Makka yooyu yépp ay muñ la yoo xam ne jullit da ko war a muñ ñaareelu muñ bi mooy téye sa bopp ci li yàlla araamal ci yow benn xale bu jigéen bu rafet woo na la fu kenn néewul nga mën a def lu kenn yégul nga daldi muñ loolu keese ngi nga tiim man cee jël kenn du yëg nga muñ loolu ak ba bàkkaar yi di jeex ñetteelu muñ bi nag moom mooy muñ dogal yi yàlla di teg sa kaw te doomu aadama fokk yàlla teg ci yow ay nattu comme ni mu ko nar a leerale ci aaye yi ci topp ñaareelu aaye bi ci li suñu borom ni wala nablu wannakum borom bi dañuy sikk amul ci ne dinaa leen nattu dinaa leen nattu pour lan ngiree mu feeñ ci yéen ña nga xam ne ñooy muñkat yi wala nablu wannakum lan laa leen di nattoo suñu borom mu ne bi shay'in min al xawf mooy lenn ci tiit doomu aadama li ko gën a sonal ci kaw suuf mooy insécurité mooy tiit yal na yàlla musal ñu ci fitna sun maam yi fekkoon bari ndakaaru yi da nga dégg ñu naan gisuma la mbaaw ndax ñépp bàyyi woon ndakaaru dem mbaaw mi ngi noonu te mooy doomu aadama loo toog di ko jàmbat rek jàmm fa am te bu jàmm amul nga bàyyi sa lépp bal am na ñoo xam ne fitna dana toll foo xam ne xatta seen njaboot dañ koy fàtte booy xool télé bi di xool li xew ay Congo li xew feneen ak feneen nit ñi ndeysaan nekk ci digg àll bi toñ-toñ yi lu tax ñu ngi bombardé seen dëkk dara melul ne fitna moo tax Ibrahima bi mu ñëwee Makka lam njëkk a ñaan mooy yàlla def fa jàmm aminan gannaaw ba nag sunu borom mu ne dinaa leen nattoo ci lenn ci xiif mbokk yi xiif lu metti la yal na yàlla musal ñu ci xiif xiif bi ngi nit yi tey xam. mooy xiif nga ba nga xëy soo ba da ngaa woor wala kaza wa kaza waaye mbokk xiif toog semaine boo xamee ni nii amoo loo lekk loolu metti na trop sunu benn maam nettali na sunu way jur ne jamono xiif bi am na ay fan yoo xam ne li suy leen njabootam mooy benn deru nag bu mu for ñu koy togg suba ba xaaju guddi doo ko daggate di lekk loolu mbokk amul na fi wii draman jàll bi nga xam ne du mag mi ngi noonu nettali na ma ci Bakel am na ay temps seen lekk yépp muy mbuum nee na koo gis lex yaa nga funki amoo loo lekk lu dul mbuum loolu xiif la di natt bu rëy donte ne ni am na feebaru xiif boo xam ne mosuma ko dégg Sénégal mais boo delloo ci dëkk yi naar yi bu mel ne al Useymin rahmatullah nee na mas na am seen dëkk feebaru xiif mooy lan da ngay tiim tey jii boolu ceebu jën lekk ko ba mu jeex keroog ngay gën a xiif kenn du suur loo mën a lekk keroog nga gën a xiif loole di mbir boo xam ne natto la bu rëy ala kulli xaal sunu borom mu ne dinaa leen nattoo leen ci xiif dinaa leen nattoo it wàññi seeni alal te loolu it lu tar la daan am xëy la nga daan am tëj loolu mbokk lu metti la da ngay gis koo xam ne service am day xëy tëj koo xam ne lii la yaakaaroon pour da ci am astuut bu xëy xëy yàqu loolee rawatina suñu mbokki baykat yi am sa tool yaakaar ko mu xëy xëy ah foo yooyu mi ngi noonu dana wàññi seen meññeent yi sunu borom yàlla it mu ne dina leen nattoo ci wàññi seen bakkan yi te loolu it bokk ci ci gën a métti wàññi seen bakkan léeg-léeg mu nekk ci ay cas individuel famille bee am nañ kuñ gaañule lu métti la su ko neexee nag suñu borom boole ko ba fàttali ko sunu maam yi am na lu ñuy tudde jamonoy peste yal na yàlla musul ci ngi noonu daañu dem ci dëkk presque rey ceeru waa dëkk ba ngi noonu loolu da ngay gis ni ay fitna la buñ la waxee na sahabatul kiram bi leen peste fekkee Sham ci Syrie ñoom Abu Ubayda moo nekkoon amir ba lu jege cent mille dee na ci ci peste boobu te buñ naan cent mille jamono jooju xaw ngaa mën a wax un million wala deux millions suñu jamono yi tey ndax démographie nam demoon ak tey bokkul kon loolu ay nattu la waaye suñu borom mu ne bu boobaa fa bashiri sabirin na nga bégal ña nga xamee ni nii ñooy muñkat yi muñ boobu mbokk borom xam-xam yi dañ koy yóbbu ci ñeenti daraja ñeent mooy natt bu dalee ci doomu aadama bi doomu aadama bi am na ñeenti melokaan yi muy nekkee benn melokaan bi waliyas billah mooy jàmbat jàmbat wone ci sa xol ak naqar gu tar gu dox sa diggante ak sa borom bu dee gëm nga ko wala sa diggante ak nature bi bu dee gëmoo ko feeñal wax ju ñaaw sa làmmiñ feeñal ko ci say jëf mi ngi noonu tasaxut loolu ñi xamul seen borom ñoo koy def imma ay yéeféer lañu wala jullit yi xamul seen borom amaa la ci yàlla gërëm mooy ñi nga xam ne bu nattu amee ñu daal di koy muñ naqari na seen xol lool mais quand même muñ nañ ko ba waxuñu lu ñaaw jëfuñu lu ñaaw mi ngi noonu donte ne nag naqari na leen lool seen xol waaye jëf waxuñu lu ñaaw jëfuñu lu ñaaw kooku am na garaat bu ko gën a kawe mooy ban mooy nga gërëm li yàlla dogal xam ne daal lii yàlla moo ko def gërëm na yàlla ci ne ah su neexee yàlla mu daal di indi leneen loo xam ne moo gën lii moom nattoo amma ba nga xam ne moo gën a kawe yépp nag mooy nga sant yàlla naka yonent bi alayhi salaam daan defe yonent bi lu ko masaan dal day wax alhamdulillahi ala kulli xaal yaakaar naa ñun ñëpp mën nañ ko alhamdulillah ala kulli xaal ñu ngi sant yàlla ci lu yàlla def ci ñun dañu yàlla féetale rek alhamdulillah ala kulli xaal mi ngi noonu alal ja dem na njaboot ga dem na kaza wa kaza wér gi yaram ga lu mën a doon alhamdulillah ala kulli xaal loolu tax julit boo ko nee sëñ bi da nga def alhamdulillah ñi ngi sant yàlla sant googee da ngay gis ne sunu borom yàlla li tax julit war a sant ki nga xam ne yàlla da koo teg nattu muñ ko muñ ko rafet ñeenti mbir mi ngi koy xaar yoo xam ne boo ci xalaatee nattu bala dal lu mu rëy rëy loolu da koy moom suñu borom yàlla mu ne ulaayka alayhim salawaatu min rabbihim dañu am ngërëm bu bawoo seen boroom wa rahma yërmaande bu bawoo ca seen boroom gannaaw ba sunu borom yàlla subhanahu wa taala lam jëkkee sax mooy al bushra bashiri sabiri ay lahumul bushra mooy bégal gën leen di bégal adduna ak alaxira asalawaat mooy ngërëm bi bawoo ci yàlla ar rahma mooy yërmaande bi bawoo ci yàlla te fee ba mu ne ulaayka humul muhtadoon ñooñu ñooy jub loo tax ñu ne yow mi yàlla teg nattu bégal bil bushra wa salawat wa rahma wal hidaaya yépp mi ngi lay xaar ci sa natt bi loo xam ne boo ko comparé ak la la yàlla nattu doo ci teg lu dul alhamdulillah alhamdulillah la sunu borom yàlla teg ci ba tey ci li borom téere bi génne mooy innama yuwaffa sabiruna ajruhum bi ajruhum bi xayri hisab sunu borom tuyaaba yi da ko utal ay nattuwaay man jaa ak xasana lahu ashru amsaliha da ngay def tuyaaba ñu fay la fukk mën naa dem ba juróom-ñaar téeméeri yoon xasana bi la ci sunu sunu borom ne dañuy dépendre sa fi sabilillah dërëm bu ne juróom-ñaar téeméeri la yàlla amma nag sunu borom mu ne yudaa'ifu liman yasha dana fulal ku mu soob loolu mooy saabiroone yi ñi nga xam ne dañuy muñ yàlla du leen calculer dañ leen di fay fay ba woo ci yàlla rek loolu kenn mënul xam lu mën a toll abadan ñu ngi noonu tey jii waa joo xam ne nii borom milliardaire la am nañu ñëw di ko liggéeyal mu leen di pointé ay jour ay journée mu am ci ñoo xam ne moom dana mooy féetewoo seen fay à chaque année dana leen fay loo xam ne nii dana tiim seen xel suñ borom yàlla daal di ciy tegit ne min azmil umur yàlla day teg day teg ci gën yi day gën mi ngi am gërëmal yàlla ngeen jàppee ne kii kat su ma jégalee mu bàyyi tooñ mais koo xam ne wóor na la boo ko jégalee day tooñ keneen kooku jarul jégal moo tax suñu borom wax leen aaye ne wala man xafara wa aslaha koo xam ne jéggale ne yéewénal mi ngi noonu mais koo xam ne tooñkat la féttéerlukat la dafay lor jullit ni bu la tooñee soo mënee jëflante ko ak moom bala muy dem di lor keneen amaa nag boo yégée ne dafa juum kookee nga baal ko yaakaar fay ci yàlla ak tooñ nga lu mu rëy rëy rëy da ngay gis ne loolu moo gën aaya bi nga xam ne nii moom moo ci tegu suñu borom mu ni dee leen dimbali ko bi sabri wa salaa inna allaha ma as-sabirin dee leen dimbali ko lii di muñ na am yàlla teg na la muñul muñ gu rafet waaye dee leen dimbali ko julli mbokk yonente bi alayhi salaam kaana ida xasabahu amrun fazia ila salaa lu ko masaan bett tiis ko day jóg jëm ci julli loolu it moo war a doon màndarga jullit lépp loo xam ne natt la bu la dal sa bakkan sa alal sa njaboot sa loo yaakaaroon ci lu mu mën a doon jógal nga julli ñaan yàlla subhanahu wa taala mu woyefal ko istainu bi sabri wa sala suñu borom nag mu ne ma assabirin mi nga ànd ak ñi muñ muñ googu mooy muñu jubal leen yërëm leen waaye bu dul looloo yàlla mi nga ànd ak ñépp mi ngi noonu wa huwa ma'akum ayna ma kuntum doomu aadama foo nekk yaa ngi ànd ak yàlla nan ngeen ànde ndax ci jëmmam laa wallah yéen a ngi ànd ci xam-xamam ak gisam ak déggam mi ngi noonu yéen a ngi ànd ci xam-xamam ak gisam ak déggam tey ñi nekk ci kër yi nekk ci wetu jàkka ji gisuñu waa jàkka ji mën naam dégguñu la ñuy wax amma sunu borom laa yaxfa alayhi shay'un fil ardi wala fi sama amul lenn lu ko réer donte ne jëmmam ja ma nga ca kaw arasham ba nekk ci kaw asamaan mi kon mi ngi ñëpp fu yéeféer daje dafa def naka sudul noonu yàlla nga ànd ak ñoom amma bu dee jullit ñi yàlla nga ànd ak ñoom ci pare ci dimbali leen ci jubal leen ci xettali leen inna allaha ma as-sabirin aaya bi ci mujj borom téere bi indi ko mooy fi nga xamee ne sunu borom day wax ni wala nabluwannakum xatta na'lam na'lam almujahidina minkum wassabirin moo di ne ni yàlla mu ne dinaa leen nattu ba xam ña nga xam ne ñooy def effort ci sama diine comme ni ñu koy waxee sànq al jihad mooy effort bi ngay def moo tax jahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum la yàlla wax jihad leen ci yoonu yàlla ci seen alal ak ci seen bakkan mënees naa jihaate ci yoonu yàlla ci sa plume jihaate yoonu yàlla ci sa lammiñ mi ngi noonu mooy lépp loo xam ne yaa ngi koy def ngir diine avancé loolu jihaat lay tudd mu ne dinaa leen nattu ba xam ñuy jihaat ci yéen xam boobee borom xam-xam dañu koy tuddee ilmu zuhur ay bam feeñ ci yéen donte ne yàlla xamoon ne lépp sunu borom mu ne alam taalam anna allaha ya'lamu ma fi samawati wal ardi inna zalika fi kitab yàlla xam ne lépp lu nekk asamaane ak suuf bal bindoon na ko mooy bokk ni li ngay gëm mbokk julit daje bi ñu daje ci jàkka ji nombre nit ñi fi ñëw nekkoon na ci téere borom ba subhanahu wa taala ku yàlla dogaluloon gën a ñëw ak loo ko bëgg bëgg bëgg mënuloo ci bokk abadan loo ko bëgg bëgg mënuloo ci bokk parce que yàlla dogalul loolu waaw yàlla na yàlla yërëm sunu mbokk Cheikh Tidiane Dieng yal na yàlla yërëm ñu yërëm sunu mbokk Cheikh Tidiane Dieng yaakaar naa ñun ñëpp dund nañu dee en direct ci mbiram jël na kaamilu alquranam jóge unité 18 di waaxu pour fekke ci tafsir bi ñëw ba ci école bi mu daanu crise asma ñu ñëw wax ñu ko nii dafa daanu foofu crise asma ñoom Bilal ñi ko doon jël yóbbu hôpital mu dee ah rahimu rahimahullah loolee mbokk da ngay gis ni ba muy jógee këram tàggatoo bokk kaamilam maa ngi jëm ca jàkka ja mais xoolal li yàlla dogal yàlla dogal mooy wuru ci bokk gis ngeen loolu la jullit war a gëm inna zalika fi kitab kon lépp lu nit di def yàlla xamoon na ko bindoon na ko juróom fukki junni at avant muy bind asamaan a suuf amaa nag soo ko defee day feeñ moo tax am na ñu koy firee li nara muy moon ay li yara ngir mu gis jëf bi waaye xam-xam bi moom jiitu woon na ne loolu luy am la mu ne nag aaya yi nga xam ne day wax ci wàllu muñ ci téereb yàlla bi lu baree baree bari la da caa jukki yooyu rek mi ngi noonu
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم
gis nañu kon mu ne an abi malik alxaaris ibnu aasim al ashari qaal qaal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam الطهور chatrul iman laab day mooy genn wàllu ngëm walhamdulillah tamla'ul mizan alhamdulillah pay ga la yàlla jox dana fees balance bi su penc wa subhanallah walhamdulillah tamla'aani aw tamla'u ma bayna alsamawati wal ard nga wax subhanallah alhamdulillah pay ga ca nekk fees na diggante asamaan ak suuf wasalaatu nuur julli day leer la wa sadaqatu burhaan amma sarax loolu aw lay la wa sabru diya muñ it moom leer la guy takk amma nuur mooy leer gu àndul ak sawara amma diya mooy luy takk huwa allazi jaala chamsa diyaan walqamara nuura moo def jant bi muy tàkk mu def weer wi muy leer walquran xujjatun lak aw aleyk alquran nag dana nekk lay contre lay ñeel la yow nga layee ko ba yàlla yërëm la wala mu nekk lay ci sa kaw ba yàlla mbugal la kullu naas yaxdu bépp bakkan day xëy fa baa'iun nafsa am na ku xëy jaay boppam fa baayu nafsa xëy di jaay boppam fa mu'tiquha am na ko jaay boppam goreel ko aw muubiquha am na ko jaay boppam alak ko mi ngi noonu mbokk sa sahaaba bu mag bi dañuy nettali lum jële ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu ne laab day mooy génn wàllu ngëm laab mbokk dafa am ñaar am na lu ñuy tuddee hissiya ak ma'nawiya mooy laab ci sobe boo xam ne bu feeñ la lu taq sa yére wala sa yaram wala place bi ngay jullee am na laab boo xam ni ci sa biir xol lay nekk ak sa jëmm ba nekk sa biir xol mooy laab ci shirk mooy sobe bi gën a bon buy dal doomu aadama mooy bokkaale laab ci rëy laab ci ay iñaan ak yu deme noonu loolu mooy genn wàllu ngëm yàlla ndax ngëm yàlla ñaari pàcc rek la mooy li arab yi di wax a taxliya ak taxliya mooy summeeku ak taaroo lenn kaddu tawxid mooy laa ilaha illallah ñaari parti la laa ilaha amul dara lu ñu waree sa jaamu illallah ku dul yàlla kon loolu mooy genn wàllu ngëm loolit mu lay woon jullit ni mu war a fagaroo ci laabal yaramam aussi yonente bi alei salaam nee na li ëpp sama xeet ñi ngi leen di mbugal ñi ngi leen di mbugal seen bàmmeel la tax ñu leen di mbugal mooy bu ñu sawee duñ bàyyi ba ndox mi pare dañ koy bàyyi mu tuur seen tëbëy ñu jóge fa dem jàpp buñ jàppee jàpp ba baaxul julli gi baaxul kon jullit war na fexe bay laab ñu ngi noonu ñaareelu wax bi ci xadis bi mooy alhamdulillah fees na balance bi si pénc jaam bi sant yàlla dëgg-dëgg sant benn alhamdulillah bi nga wax ca muy dëgg ci yow pay gala ci yàllay jagleel balance bi si pénc fees na ko jullit dafa war a gëm balance bi si pénc lu am la adduna yaa mille balance soo demoon tey bitig bi am na lu muy peser boo xam ne à peine ay dix kilos la yor soo demee ca magasin ba am na balance yu mag yu mën a jël cent kilos et poussière soo demoon ci tëgg bi am na balance électronique yoo xam ne ay zéro virgule nangam gramme lay jël léegi balance bi suñ ci xamuñu lu muy doon waaye même bu doon tenee balance la buy jël un million de tonnes boo waxee alhamdulilah bu dëggu ci yow tuyaaba ja ciy jóge poids ba mooy gën a diis balance bi suñ ci tam la ul misaan ni ngi noonu loolu mi wane ni jullit war nay sant yàlla subhanahu wa taala donte ne waxoon nañu leen ne alhamdulilah balaa wér fokk mu dajeeg ñetti mbir mooy xol bi yëg ne mboolem xéewal ci yàlla la jóge làmmiñ bi sant ci yàlla xéewal gi nga teg ko fi neex yàlla fii rek la alhamdulilah bi di wéree ñaareel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ne wala ñetteel bi boog nit ki wax subhanallah ak alhamdulilah la ca nekk ci tuyaaba suñ ko dajale woon day fees diggante asamaan ak suuf mi ngi noonu tuyaaba ji yàlla teg ci subhanallah ak alhamdulillah day fees diggante asamaan ak suuf mooy place dootu fi des ndax mbokk sunu borom ñaar yooyu la ñu siq ak moom subhanallah mooy dàqal ko bépp manquité bépp manquité subhanallah lépp luy manquité rek yàlla da caa mucc alhamdulilah mooy mboole mi xéewal mboole mi mat dafay dellu ci yàlla subhanahu wa taala mi ngi noonu loolu tax mu ne day fees diggante asamaan yi ak li nga xam ne moom mooy suuf yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci ni julli day leer la naam julli gi nga jox àq day leeral sa xol ba heure boo xamee ne ay shirk ki caaxaane ki biddaa ñëw da nga koy teel a ràññee heure boo ay bakkaar yu bon ñëwee da nga koy teel a ràññee waaye day doon leer buy jeexital say jëf bu sa julli normale sa diine sell day leeral sa bàmmeel leeral sa yoonu bi su penc ba tabbala aljanna asalaatu nuur amma sarax mu ne loolu preuve la buy wane ne kii am na ngëm doomu aadama li mu gën a bëgg mooy alal wa innahu li xubbil xayri la shadid doomu aadama dafa bëgg alal kon lépp la nga xam ne jël nga ko bëgg ko sa xol nga jox ko ngir yàlla tax day wane ne yow kii ngëm am na ci moom a sadaqatu burhan mi ngi noonu preuve la buy wane ni kii ngëm yàlla mi ngi ci xolam la nga xamee ni it loolu la ci yonente bi alayhi salaam teg mu ne muñ moom diyaa la muñ leer la goy tàkk lu tax muy muñ dafa metti moo tax yonente bi ne diyaa la diyaa mooy lu ànd ak safara ndax muñ mooy sa xol mi nga am lu lu lu koy dagg te it amul kenn kuy gërëm yàlla ka sant yàlla lu dul ne doomu aadama nga mën a doon mooy lu metti bu la dalee dana am loo yëg sa xol waaye sa comportement la la yàlla di gërëmee moo tax mu ne diyaa la loolu comme ni muy nar a feeñe ci xadiis yonent bi alayhi salaam ba muy jooy ba sëtam ba faato kon mi ngi noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci it ne alxuraan nag moom mi ngi nii ñaar rek ka tax a jóg preuve la bu lay tàbbal aljanna moo dina yowmal qiyaama yàlla dana ko indi wa innahu li zikrun laka wa li qawmika wa sawfa tusaluun ku nekk ñu laaj la li nga doon jëf jëf bi dëppoo na ak alxuraan am nga preuve visa buy wane ne àjjana nga yeyoo ñu xool say jëf mu safaanoog alquran wane ne na yow sawara nga jëm xujjatun lak aw aleyk mi ngi noonu loolee ngeen dégg gaa yi ñaan ci xudatul witr fajalu hujjatan lana la aleyna yàlla na ko def muy sun lay bañ a doon lu ñuy condamné yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxee ci xadis mag bi ba tey mu ne kullu nas yaxdu nit ñi ñépp ay xëyandoo waaye bu ñu xëyee dañuy jaay seen bopp am na koo xam ne jaay na boppam goreel ko goreel ko ci sawar goreel ko ci merom yàlla am na koo xam ne bu mu xëyee daa jaay boppam alak ko ci xoolal mbokk ñaari julit ñaari mooy julit ak yéeféer bu xëyandoo yéeféer mooy kiy nelaw ba nelawam doy sëkk wala programme addunaam moo ko yee jullit mooy ki yeewu waxtu wa yàlla bëggee mu yeewu soo paree foo jëm yaa nga dox jëm ca néegu yàlla ba yéeféer ma nga jëm dox ci néegi àdduna seeni wax yow yaa ngi tagg sa boroom di ko màggal ko sabbal yéeféer moom ma ngay kër kër yi ut lu ñu am soo dellusee yaa ngi saxaat ci jaamu yàlla ba baa ngay tëdd amma yéeféer ma nga nekk ca la borom bi wax yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am bànneexu lekk ak naan kon looloo tax sunu borom ne képp ci nit day xëy am na ku xëy alak boppam am na ku xëy jot boppam waaye it loolu it muy wane na mbokk julit doomu aadama war na def attention yonent bi alayhi salaam wax na ci beneen xadis ne fitnaa ngi ñëw ci axiru zaman nit dana fanaanoo julit xëy suba jaay diineem ci lu tuuti ci àdduna gis ngeen jaay diineem ci lu tuuti ci àdduna mu ne it nit dana xëye jullit balaa ngoon a jot mu jaay diineem ci lu tuuti ci àdduna ko defee bus bu nekk del contrôler sa bopp lépp luy dugg di ca génn nga xool ban jeexital lay am ca la nga xamee ne ni moom mooy sa wàllu diine mi ngi noonu
wa an abi saidin سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر متفق عليه وعن أبي
kon hadisu ñaar fukk ak juróom benn ci téere bi abi saad ibn malik ibn sinan al khudri moo koy nettali mu ne anna naasan min al ansar ay nit ñu bokk ci waa ansar muy waa madina saalu rasulallahi fa aataahum ñëw nañ di laaj yonent bi mu leen di jox summa saaluuhu fa aataahum ñu laajaat ko mu jox leen xatta nafida ma inda ba lim yoroon lépp jeex fa qaala lahum xiina anfaqa kulla cheyin bi yadi mu wax leen gannaaw ba mu dépensé lépp loo xam ne nekkoon na ci loxoom maa yakunu indi min xayrin falan udaxirahu ankum falan addaxirahu ankum lépp loo xam ne nekk na ci sama loxo ci yiw day du ma leen ko dencal mukk du ma ko denc bàyyi leen wa man yastafif yuafihu llah képp koo xam ni dafay fegu yuafahu llah yàlla subhanahu wa taala dana ko fekk wa man yastagni yugnihi llah ku woomle woomlewu yàlla dana ko def muy ku woomle wa man yatasabar yusabiruhu llah koo xam ne dafa muñ muñ lu yàlla dana ko boole ci ñuy muñ waaye nag wa ma utiya ahadun ataan amul kenn koo xam ne jox nañ ko ak may xayran wa awsa min as-sabr boo xam ne moo gën atu li nga xam ne muy muñ mi ngi noonu mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk na ci Madina yàlla daan ko dikkal léeg-léeg ci ay xéewal imma ci dañ daan jëlee ci jihaad ba wala ay jizya yi ñu ko daan indil ay ngañaay yu deme noonu fuqara yi dañ daan ñëw mu leen di jox bis nag jox na leen ba lim yoroon jeex mu ne leen ay yéen nit ñi xam leen ne de desewuma dara su ma dese woon dara du ma ko nëbb mukk ñeel leen loolu di mbir moo xam ni daan ci dégg dégg lu rëy mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekkul woon koo xam ni dañ ko daan jox alal muy dajale tabax ay kër yoo xam ne nii ku ko gis xam ne lii day kër sëriñ la mën a doon woto yoo xam ne bu la rombee kii day oto sëriñ rek la mën a doon tool boo xam ne wóor na la ni lii toolu sëriñ rek la mën a doon yonent bi alayhi salaam yooyu amu ci woon dara loolu tax këram daanañ toog ay fan bal ay weer ci ni sax du fa tàkk lu masaan ñëw mu séddale ko fuqaraaw yi loolee muy benn gannaaw ba itamit gis nañu ni xutba na ñooñu nga xam ne mooy waa ansaar yooyu daaji leen ne day xam leen ni képp koo xam ne da nga jéem a fegu fegu googu suñ ko booyalee mi ngi gën a jëm ci wàllu jigéen mi ngi noonu mooy al afa fegu ba bañ a dugg ci lépp lu jëm ci wàllu njaaloo képp koo xam ne jéem ngaa téye sa bopp ci jigéen ñi yàlla dana la fekk te mooy dana la may soxna yoo xam ne daañ sedd sa xol ba doo soxlaal yeneen jigéen ñi ñu ngi noonu donte ne ne dana yegg ci alal ak leneen gannaaw ba mooy képp koo xam ne dangaa xool la la yàlla wërsëgal mu néew ko bari nga doyloo ko sunu borom dana la may ak doylu ay yàlla dana def loolu doy la te it daana wax ni bari la nekkul ci am lu ne gàññi waaye bari la ci biir xol lay nekk beneen biir mu ne koo xam ne dangaa muñ muñlu mooy yàlla teg na ci yow nattu waaye nattu ba ba ko yàlla tegee ci yow feeñul ci sa làmmiñ feeñul ci say jëf sunu borom dana la may kattan kattan goo xam ne da nga ko mën a muñee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ci it ne yàlla li muy may jaam ci kaw suuf amu ci benn bu gën wala bu gën a yaatu muñ ndax niñ ko jàngee sànq ci bunt bi muñ moo ëpp lépp diine moo tax sunu borom ba mu teggee yonent yi mu ne kullum min as-sabirin ñoom ñépp ay muñkat lañu woon ndax muñ mooy lan mooy loo xam ne dara génn ci ci diine ji muñ dogal yi muñ santaane yi muñ tere yi képp koo xam ne nii yàlla wërsëgal na la ba nga mën a muñ xamal ne xéewalu àdduna yépp dajale nga ko mi ngi noonu yàlla yàlla boo la ñu min as-sabirin
صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء فكان خيرا له
وعن أبي يحيى صهيب بن الصنان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن أكيمي نيل بري جليت إن أمره كله له خير أي مبرم دي لب نيل نكم يو وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن تليدي نيل الكن xanaa dul ñeel ki gëm in asaabathu sarra heure bu ko laalee mbégte shakara fa kaana xayran la day sant yàlla loolu nekk yiw ñeel ko wa in asaabathu darra heure bu ko dalee aw tiis di métit sabara day muñ fa kaana xayran la mu nekk yiw ñeel ko bokk julit xadis yi bokk na ci xadis yi gën a siiw yi ngeen di dégg sunu yonent alayhi salaam di yéem mbiru ki gëm yàlla ki gëm yàlla mooy ki nga xam ne dafay jàpp ne moom jaamub yàlla la te yàlla boroom yërmande la lépp lu mu ko teg ci tiis rek da koy seet fu mu toll ci muñ te bu ko muñee muñ gu rafet mu tegal ko ca lu gën loolu loolu tax yonent bi alayhi salaam ne léppam yiw la nattu dal na ko mi ngi ci xéewal xéewal dal na ko mi ngi ci xéewal mu ne loolu nag jullit rek moo ko am amma soo demee ci yéeféer yi rawatina Occident xabaar yi nga fay dégg da ngay gis ku ñu dàq service am léegi mu ñëw xaru rayaale njabootam yépp sax mi ngi noonu ndax amatul benn yaakaar amma jullit mooy ki nga xam ne mooy aji muñ ji muñ boo xam ne nii muñ bu rafet la te la ko yàlla subhanahu wa taala di di di di di teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam gis nañu ne daanañu sant sax ñuy ñaan yàlla subhanahu wa taala ci di sant ay xéewalam ni ngi noonu ca mooy xéewali ñu delloo ko fi neex yàlla subhanahu wa taala waaye noonu ngay ñaan yàlla mu may la nga sant allahuma inni ala zikrika wa shukrika wa xusni ibadatik noonu it ngay war a ñaan yàlla subhanahu wa taala heure bu dee yàlla nattu na la teg ci yow ab nattu ak bu mu mën a doon nga ñaan yàlla mu may la muñ gu rafet comme nam ko maye woon ki nga xam ne mooy yanquba alayhi salaam gis nañu ne lu mu waxoon doomam ya fa sabarun jamil sabarun jamil muñ gu rafet lay muñ mooy muñ goo xam ni du ma ko nekk di feeñal lenn lu sama borom yàlla gërëmul mi ngi noonu
رواه مسلم وعن انس رضي الله عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب فقالت فاطمه رضي الله عنها وكرب ابتاه فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم فلما مات قالت يا أبتاه أجاب ربا دعاه يا أبتاه جنة الفردوس مأواه يا أبتاه إلى جبريل ننعاه فلما دفن قالت قالت فاطمة رضي الله عنها أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب رواه البخاري
kii nga xam ne mooy anas ibnu malik mooy xaadimu rasulullahi salallahu alayhi wa sallam bi mboolem borom xam-xam yi nekk penku jant ak sowu jant xam mi ngi noonu donte ne bu dee xaadimu rasul moom mooy jéem a jottali ab sunnaam bépp julit dafa war a ñaan yàlla nekk xaadimu rasul ca a la yonent bi waxoon ne balligu anni walaw aaya da ngeen ma jottalil waaye bu ñu nee xaadimu rasul fu ñu ko booyle boole mi borom xam-xamu adduna bi seen xel ma ngay dem ca anas ibnu malik anas boobu nee na bam waaw wala boog ñu ngi ko dul wax baat par baat qaala lamma saqula nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba diis yonent bi ci sukuraat jaala yataghashaahu lkarb demoon na di ko muur lii di tiis ba te mooy sakaratul mawt ba ko doon dal li fa qaalat fatima noonu la waxe doomam ja fatima radiallahu anha waa karba abata mooy comme ni nga waxe rek cey ay waay sama tiisu baay bi fa qaala laysa ala abiki karbun baad al yowm mu ne ko muñal sa baay beneen tiis dootu dal ci gannaawam gannaaw bi su tey bi fa lamma maat ba yonente bi alayhi salaam faatoo qaalat ya abata mu ne eewaay sama baay ajaaba rabban daa wuy jina boroom ba ko woo ya abata ay sama baay jannatul firdawsi maswa ka nga xam ne mawa ka nga xam ne ajjane firdaws mooy wàccuwaayam ya abata ay sama baay ila jibril nan ila jibril nan a ci jibril day lañ koy tàgge jëm falamma dufina bañ suulee yonent bi sallallahu alayhi wasallam qaalat fatima radiallahu anha ataabat anfusukum ma ndax yéen sahaaba yi tey na seen bakkan an taxsu ala rasulillahi turab ngeen jël suuf di ko sotti ci kaw yonent yàlla bi rawahu lbuxaari mbokk lii xadis la boo xam ne bu triste la buy wane ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam dafa sukuraatoon sukuraat bu métti ca loolu it yàlla da koy jox ñaari pay ci mboolemi jaami yàlla looloo tax sukuraat bu même bi muy dund su ma saan sibru kenn du ko mën a jege ci tàngaay ndax double dose la ko yàlla daan teg sukuraat tamit noonu la dafa métti woon torop loolu it dafa nga gis nit ñi di ci def erreur ñu ne diw de yi dafa dee deegu sedd ndax loolu daa firi ne yàlla da koo gërëm laa dañoo tëdd nelaw rek ñu yow dee na déedéet wala diw ñu gis mi ngi sukuraat sonno ñu jàpp ne dafa def ay bakkaar laa benn sukuraat gënul métti sukuraatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dana taral sukuraatu julit ngir far desitu bakkaaram ngir gën a yëkkati ay darajaam léegi bi nga xam ne loolu dal na ko Fatima daa di ñëw daa di ne ay waay sama tiisu baay bi yonent bi ne ko Fatima gannaaw bi sa tey bi sa baay dootul am tiis wala métit abadan ca may wane na kon bi su tey la nar a faatu yonent bi alayhi salaam faatu bi mu faatoo Fatima ne ay sama baay wuy dina boroomam ba ko woo ay sama baay mi firdaws nar a nekk wàccuwaayam firdaws mooy ajjane bi gën a kawe ci ajjana yi lan moo ko tiim mooy arshu rahman ay sama baay ñi ngi koy tàgge jibril te muy wane ne waa suuf bu ñu amee lu leen ci metti que gënoon a nekk xaritam mooy jibril alayhi salaam mi daan wàcce ci moom wahyu te maadaama yonent bi faatu na jibril dootul wàcc abadan te loolu it nga la way gëm leen ko jibril dootul wàcc ci benn jaamu yàlla di ko wax naan yàlla nee na wala kaza wa kaza abadan mi ngi jeex woon ci sunu yonent alayhi salatu wasalaam ilaa jibril naan ah gannaaw ba sahaaba yi sul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam comme na leen ko seen borom digale fatima yeneen riwaaye day wax ne anas sax la doon waxal ne ko waaye anas waaye yéen ndax nan ngeen mën a amee xel mu mu dal nan la seen xol mën a maye tiim yonent bi alayhi salaam jël suuf di ko suul mi ngi noonu anas ibnu malik bu la nettali xadis bi nee na fu mu ko nettalee jooy yi metti la cay boole gis ngeen waaye loolu moo tax sunu boroom mbiri jigéen mbiru néew boolewu ci jigéen gis ngeen du sunna jigéen ànd dem suuli néew ndax jigéen dafa bëri sentiment ak Fatima ni muy baax baax gis nga li mu wax looloo tax mbir yi néew yàlla jagleel ko góor ñi loolu it muy wane ne ab jullit man nga am loo xam ne nii dana la naqari ci natt bu la yàlla dal waaye fexeel ba bul wax lu yàlla gërëmul ndax ku xam ne ne ne jigéen bu ñàkk baayam ak koo mën a doon dana la tiis waxumaa nag Fatima Fatima bi nga xam ne bi muy xale bu ndaw la yaayam faatu xamul ku dul baayam fukki at yi ñu nekk Madina yépp xamul ku dul baayam demoon nañ ba sëram yépp faatu lépp lu yonent bi cosaanoon ci am ñépp faatu nañu moog yonent bi doo nga ci des ñu xëy xëy yonent boobu faatu mbokk ku ne xam ne lii tiis bu metti la mais teewul li mu wax lépp doo ci gis lenn loo xam ne ngërëmal yàlla nekko ca radiyallahu anha mi ngi noonu
زيد أسامة بن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبه وابن حبه رضي الله عنهما قال أرسلت بنت النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني قد احتضر فاشهدنا فأرسل يقرئ السلام ويقول إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وزيد بن ثابت ورجال رضي الله عنه ورفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي فأقعده في حجره ونفسه تقعقع ففاضت عيناه فقال سعد يا رسول الله ما هذا فقال هذه رحمة جعلها الله تعالى في قلوب عباده وفي رواية في قلوب من شاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء متفق عليه
sunu xadis bu mujj di xadisu ñaar fukk ak juróom ñeent ci téere bi mu ne wa ana abi zaydin osama ibnu zayd ibnu xaaris mawla rasulullahi salallahu alayhi wa sallam wa xibbihi wa ibnu xibbihi ki nga xam ni mooy osama soppe yonent bi di doomu soppe yonent bi di zayd radiallahu anhuma qaala arsalat bintu nabi sallallahu alayhi wa sallam inna ibnati qad uhtidira kenn ci doomi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ko yónnee ne ko man day sama doom mi ngi nekk ci sukuraat ay teewe na ko ak dee fashhad na ayumi yàlla yónni kaay seede loolu ak ñun fa arsala yuqri'u salaam wa yaqul mu yónnee ci moom di ko nuyuwaat ne ko inna lillahi ma axaza ñal na yàlla la mu jël walahu ma aata ñeel na ko lam bàyyi lam joxe wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma lu mu mën a doon ci yàlla nekkoon na ci dig bu mu tudd fal tasbir na nga muñ wal taxtasib ca nga yaakaar fay ci yàlla fa arsalat ilayhi tuqsimu alayhi la yatiyannaha ndaw su yónnee waat ci moom daa di waat ci moom dogg ci ne baayam bi fokk mu ñëw fa qaama ma'ahu fa qaama yonent bi jóg wa ma'ahu saad ibnu obada wa muaz wa obay wa zayd mu jóg ànd ak saxaaba yooyu ñu lim wa rijalun ak yeneen góor fa rufia ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam sabi ñu daal di yëkkati xale bi jox ko yonent bi fa aqaadahu fi xijrihi yonent bi daal di koy teg ca poojam ba wa nafsuhu taqaqah la nga xamee ne nii mooy bakkanam ba nekk di yéeg a ko wàcc fa faadat aynaahu yonente bi ay bëtam di tuur tuur rangoñ fa qaala saad ya rasulullah ma haada saad daal dina ko waa yu mu yàlla ne lii lan la fa qaala hadihi rahma lii de yërmande la jaalaha allahu taala fi qulubi ibaadi yàllaa ko def ci xolu ay jaamam wa fi riwaaya fi qulubi man shaa min ibaadi moo ko def ci xolu ku mu soob ci ay jaamam wa innama yarhamu allahu min ibadihi rahama yàlla dana yërëm ci ay jaamam ña nga xam ne dañ ca am yërmaande mbokk kon xadis bi lim ñuy jàngal mooy benn ci soxna yonent ci doomi yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na ci riwaaya Zaynab la muy taawam bu jigéen la doomam nekk ci sukuraat mu yónni ci yonent bi alayhi salaam xamal ko ko yonent bi na ndaw bi boo demee ne ko na xam ne yàlla moo moom li mu jël mooy bu jëlee doom bi jëlul alali kenn alalam la jël gis ngeen alalam la jël lillahi ma aqaza yàlla it moo moom li mu joxe ca mooy lim fi bàyyi it moo ko moom lu nekk nag utal na ko dikk bu dee bakkan bi utal na ko dikk waaye portable bi amul fu mu war a yema waay aha kay moo di ne oto bi am na fu mu war a yem kër gi lu mu taaru taaru am na fu mu war a yem amul lenn loo xam ne day am ci kaw suuf lu dul am na dig boo xam ne fa la war a yem kullu shay la la la yonent bi wax kullu shay garab da ngay gis garab gu dund ñetti téeméeri at wala am na garab yi dund juróom-ñaar téeméer ba loolu mais bis tay musuñu rek mu daanu kullu shay indahu bi ajalin musamma kon na nga muñ muñ gu rafet te yaakaar pay ci yàlla pay ba mooy lan ku yàlla jël sa doom nga muñ ko muñ gu rafet sa pay mooy aljanna ku yàlla jël sa doom nga muñ ko muñ gu rafet sa pay mooy aljanna ci yeneen xadis yeneen ci bàyyi salaam wax ko kon fal tasbir wal taxtasib waaye ndaw si insisté daa di ne ko na ñëw rek xam ngeen surtout jigéen ak kii yeneen ci bàyyi salaam jóg ànd ak lenn ci ay saxaaba ca it ñu ngi noonu ngir dem wéttali doomam jooju tiis nar a dal ci kawam ba tey it boroom xam-xam yi sopp nañu nit ki bu ñu yégee dafa sukuraat ñëwoo ay nit ñu baax ñu ñëw wéttali ko ci jamono bu jafe boobee di wax ci moom lu yiw rawatina di ko fàttali bu dee maga kàddu laa ilaha illallah ñu ngi noonu bi yonent bi ñëwee ñu jox ko xale bi xale bi mi ngi sukuraat di tëbb ak dal noy gi deme ko dikk yonent bi tuur rangoon ki nga xam ne mooy Saad ibnu Obada moom ma nekkoon kilifa giir gu mag ci Madina ñu ko wax waa Xasraj na ko wax yonent bi lii nag te moom déggoon na yonent bi tere ñuy jooy ay nattoog kaza wa kaza rawatina ko dee Saad yonent bi ne ko lii de yërmande la bu yàllay def ci xolu ku ko neex ci ay jaamam ñi yàlla yërëm ci ay jaamam mooy ñi nga xam ne dañuy yërëm jaami yàlla yi loolu muy wone ne ak jullit heure bu gisee ku nekk ci tiis na doon kooku gone la kooku màgget la kookee lu mu mën a doon war na am lu mu yëg ci xolam mi ngi noonu même bu demoon bay tur rangooñ mu tur rangooñ bu turu rangooñ it mu am ci moom yërmande amaa ko yërmande jeex ci yow mandarga la buy wone ne yow yàlla subhanahu wa taala gërëmu la donte ne am na beneen xadis boo xam ne yeneen ci bàyyi sam daf ne saad ah inna alqalba la tahzanu wa inna al ayna la tadma'u wala naqulu illa bima nurdi rabbu rabbuna xol bi day mi ngi tiisu bët bi tuur na rangooñ waaye nag du ñu wax lu dul yàlla gërëm gis ngeen lii tamit mooy mbir bi heure bul yàlla tege ci yow nattu sa xol mën na tiisu sa bët mën a tuur rangooñ mais làmmiñ bi moom bu mu wax lu dul yàlla gërëm kon mbokk incha allah loolu mooy bind bi ñu doon jël tey ci riyaadu salihin di ñaan yàlla yàlla yàlla boole ñu min as-sabirin te yàlla bu ñu yàlla teg natt bu ñu attanul yàlla na yàlla may ñu aafiya fi dunya wal axira